bisimila ci ëttu yëglekaay yi yéenekaay yi def lu baax tv point comme seen bokk seen xarit Cheikh Beye moo ñëw di fesal li ci ëttu yëglekaay yi ak yéenekaay yi tey nag le mercredi 11 octobre ci atum 2023 bi nga xam ne moom la ñu nekk bokk na ci li nga xam ne moom moo ci gën a fes daal di daal xini mini bi nga xam ne entraîneurs yi moom la ñu nekk yenn entraîneurs yi daal ñoom wax nañ ne daal ba fas daal fi mu toll moom la ñu gën a jege ci nekk fas di ci liggéey ndax yëf yi dafa metti ci lool ànd ak dëgër ba àgg ci lool te leneen li nga xam ne moom moo ci inconvénient liñ mënta pardonné mooy course daal ñu defal leen benn programme boo xam ne ñu xam ne kañ lay ubbi ak kañ lay tëj loolu mënut am daal ñoom seen liggéey daal da day am xel mi seen liggéey daal du am benn transparence te tamit seen liggéey daal duñ xam ci dara lu mën a tënku duñ mën a aviser wu duñ mën a coppite ci dara ndax daal li wér te wóor moom ab programme dafa raam ci course hippique bu Sénégal lamb am nañ programme xam nañ kañ la ñuy xam nañ kañ la ñuy tëj xam nañ kañ la ñuy ubbi xam nañ kañ la ñuy xam nañ kañ la ñuy ubbi xam nañ kañ la nawetaan bi nga xam ne sax daanaka du dara ñoom ñooñu sax xam nañu kañ la ñuy ubbi ak kañ la ñuy tëj waaye course hippique bu Sénégal daal ñoom kenn xamul kañ la ñuy ubbi ak kañ la ñuy tëj te daal bëggoon nañ daal ci dëgg-dëgg ñu xam kañ la ñuy ubbi kañ la ñuy tëj bu ko defee ñu mën a xam seen i programme mën a xam seen i naal mën a xam seeni sumb mëna xam lan lañuy jël bénéw ak fan lañuy jéxalé waye lool dal mom moom munta am ben yoon en tout cas li wér te wër moom ñoom daal sonn nañu àgg nañ ci jommi jomet jaaxle nañ ba lool bëgg nañ daal koo xam ne daal moo leen ci dimbale en tout CNG bu course hippique bu Sénégal moom li ñu wax ne danañ ko ubbi course yi bu fekkee mois de janvier lañ ko ubbi ndax dana fekk sax yenn fas yi pare en tout cas ñoom ñenn ñi sax waxoon nañ ne danañ ko def le tout wala ñeneen ñoom ñoo ko ubbi en tout cas li wér te wër moom bu doon day ubbi tey ñii fi toog ñoo ko ubbi ndaxte ministre bi nga xam ne moom moo nekk ñoom la fi copté woon ñoom la fi bàyyi woon te seen mandat jeexagul fii lañ yemandi bye bye bonne continuation à vous à vous Dakar.